wuute nañ ci ay wax yu bëree bëri waaye boo demee ci ku mel ni ibnul jarir rahimahullah moom dafa wax ni ashbahu al aqwali fi dalika bi dahiri tanzili qawlu man qaala amalun fi leylati alqadri xayrun min amali alfi shahrin laysa fiha leylatu alqadri nee na moom daal li mu jàpp ne moo gën a mat te moo gën a niroog li nga xam ne mooy aaya bi te mooy wàcce gi te mooy mu ne bépp jëf boo xam ne def nga ko ci lu dul laylatul xadri nee na boo ko defee ci laylatul xadri ca la moom mooy ëpp doole kon amalun mi na jëf boo xam ne danga koy def fii laylatil xadri ci biir laylatul xadri xayrun nee na jëf boobu nga def ci biir weeru ci buddu laylatul xadr mu ne moo gën bépp jëf boo xam ne def nga ko ci loo xam ne ba nga koy def nekkul guddi laylatul qadri kon loolu lay tekki moom naka noonu ibnu kathir moom it gis-gis boobu la ci am wa hada huwa alqawlu alladi wa wa sawabahu ibnu kathir rahimahullah fi tafsirihi te mooy ibnu kathir moom it wax jooju la jàpp ne eh, moom la la la jàpp ne moom lay tekki ñetteelu ngeneel bi mooy tana tanazzulu almalaikatu wa ruhu fiha maanaam le fait malaayika yi ñoom ñëpp dañuy wàcc ci guddi laylatul xadri ànd ak jibril mi nga xam ne mooy seefu malaayika yi moo tax alquran wax ni tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin wal maqsuudu bi ruux jibril naanam ki ñuy jublu ñag ak ruux mooy jibril nga xam ne mooy seefu malaayika yi moo tax li ñuy tekki mooy laylatul xadri dina ñëw ci waxtu bi ak kañ la ndax werante bi bari na ci waaye lu ci mën a am rek incha allah dina am ay leeral luñ ci indi ñeenteelu ngëneel bi nga xam ne mu ngi ci guddi laylatul qadri alquran moo ñu ko wax damay annaha salaamun maanaam jàmm la te mooy li mu wax ni salaamun hiya hatta matlayl fajri maanaam jàmm la rek bu bët di set ba fajar di xar foofu tamit boroom xam-xam yi wuute nañ ci ci salaamun ji lan lay tekki waaye dañu wax ni am nañu wax ni salaamun min sharri kullihi maanaam dafay mucc ci loo xam ne mooy musiba ci guddi gi benn musiba du ci am benn musiba du am ci guddi gi salaamun min kulli min sharri maanaam dafay mucc ci bépp musiba moom guddi gi mu ne laa yakunu fiha ila salaamatu mu ne dara du ci am lu dul yiw rek ak baax ak jàmm wa qiila am nañu wax ne taslimul malaayikati ala al muminin maanaam malaayika ni ñu ñëw di saafwante ak jullit yi ak ñi gëm yàlla nee na mooy salaamun ji wa qiila am ñu wax ne laa yastatiu cheytaanu fiha suua maanaam seytaane du ci mën a def loo xam ne safaan la wa qiila dalik am nañ lu wax leneen yu dul wax yooyu juróomeelu ci ngeneelu laylatul qadri annaha laylatun mubarakatun guddi barke la qaala taala inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin yàlla ma wax ni wàcc nañ ko te mooy alquran fii laylatin ci guddi mubarakatin guddi gu barke qaala ibnu abbasin ibnu abbas nag moo wax ni eh, fi laylatin mubaraka yaani laylatul qadri laylatul mubaraka guddi barke boobu ibnu abbas nee na mooy guddi laylatul qadri juróom-ñetteelu ngeneel yi ci laylatul qadri fiha tuqaddaru maqadiru sanati nee nañ ci guddi laylatul qadr ci la ñuy dogalee li nga xam ne mooy am ci at mi yépp ci ay dogal ci guddi googu lañ koy dessiner loolu la mu tax alquran wax ne fiha yufarraqu kullu amrin hakimin suratu doxaan alxuraan moo wax ni ci bésu laylatul qadri nee na ci la yàllaay bind lépp loo xam ne mooy dogal lu war a am ci at moomu yépp ci guddi laylatul qadri lañ koy désigné juróom-ñaareelu ngeneel ci laylatul qadri laylatul qadri képp koo xam ne fexe nga bu taxaw di ko màggal li ci daamu yàlla danañ la jéggal sa mboole mi bàkkaar te mooy man qaamaha imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi nee na képp koo xam ni da nga taxaw waaye boole koo gëm waaye boole koo sàkku tiyaaba ci laylatul qadr dana la jéggal sa bakkaar yi passé yëpp yàlla ñu ko yàlla defal jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu fa qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man qaama laylatal qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi yonent bi ma wax ne képp koo xam ne da nga taxaw jaamu yàlla ànd ko gëm laylatul qadri waaye boole ko sàkku yiw sàkku tiyaaba ci guddi gi nee na ñu jéggal la sa mbooleem bakkaar yi nga xam ne passé na juróom-ñetteel bi mooy point bu mujj bi mooy anna allaha fi fadliha suuratan kaamilatan tutla ila yawmi alqiyamati ne na yàlla wàcce na ci saar bu mat sëkk saar boo xam ne dañ koy jàng ba yawm alqiyamati kon loolu mooy liñ doon wax ci ngeneel ci nga xam ne mën nañ koo citer rek bu ko defee auditeurs yi mën koo jëriñoo laylatul xadri nag kañ la ak ban bés la ak ban guddi la eh, mën nañu wax rek ni seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne aïchata radiallahu anha moo ko nettali moo wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala taxarraw leylata alqadri fi lwitri min al ashri awaaqiri min ramadana te mooy wax ni na ngeen gëstu wala na ngeen xool na ngeen kar guddi laylatul qadri ci fan yi nga xam ne dafa tool te mooy fan yu mujj yi ci weeru koor gi euh, Aysatu radiallahu anha mu waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa bu ngeen di xool weer laylatul qadri ban guddi la mu ne na ngeen ko xool ci fan yi nga xam ne dafa tool te mooy ci fan yu mujj yi te mooy bu ñu ne fan yu mujj mooy fukki fan yu mujj yi ci weeru koor gi kon li muy tekki comme laylatul qadr dafa bokk ci guddi gi nga xam ni ci guddi yi nga xam ne xamuñu ko la bokk doonte nag am na ci ay indication yoo xam ne boroom xam-xam yi indi nañ ko ndax it ñu bëri dañu wax ni am na ñoo xam ne dañu wax ne ci fukki ci ñaar fukki fan bi ak benn ñi ñaar fukk ak ñett ñi ne ñaar fukk ak juróom ñi ne ñaar fukk ak juróom-ñaar maanaam yi nga xam ne dafa tóol li muy tekki mooy comme xamoo ne ban bés la yow danga fexe rek bu amee ñaar fukki fan fukki fan yi mujj ci koor gi yépp na fexe rek guddi gu nekk rek nga jóg sonn ci di jaamu yàlla jàpp ne guddi googu mooy laylatul xadri mun na am xanaa di nga tombe ak benn ci guddi gi waaye nag boo demee ci boroom xam-xam yi dañu wax ne laylatul xadri saar bi nga xam ne moom la yàlla waxee tuddee guddi gi boo xoolee laylatul qadri alquran cité na ko ñetti yoon laylatul qadri inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri cité na ko ñetti yoon waaye boo jëlee laylatu qadri boo ko calculer dina la jox juróom-ñeenti xaraf mooy lettre moo tax ñu ne comme yàlla tudd na ko ñetti yoon te baat yi boo ko limee muy jox la juróom-ñetti juróom-ñaar juróom-ñeenti lettre la lay jox su boobaa dañuy jël juróom-ñeenti yooyu dañuy wax ne neuf la ñuy jël euh, trois fois trois fois neuf ñaata la ah trois fois sept vingt et un ah. waaye ñoom dañuy wax ne dañuy jël ñett yooyu buñ ko multiplier par neuf ñaata la lay jox. 27 3 fois 9 27 kon dañuy jël 3 multiplier ko par mu jox leen 27e jour bi waaye boo kon di compter compter xaraf yi boo ñëwee di compter ba yegsi ci laylatul qadri xayru min alfi shahri tanazalul malaikatu fi tanazalul malaikatu wa ruhu fiha bi isni rabbi min kulli amrin salaamun hiya salaamun hiya gi boo ko boo ñëwee ba foofu dina la jox 27 kon li muy tekki mooy li gën a am solo daal mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñu bari rawatina sunu réew ñaar fukk ak juróom-ñaar ci la ñuy màggal laylatul qadri waaye nag duma wax ni it keneen mën na ko def ci beneen jour waaye li am solo mooy fukki fan yu mujj yi yonent bi waxoon daal képp koo xam ne fexe nga ba màggal fukki fan yooyu yëpp di ci mën a daje ak benn bés ci yi nga xam ne yonent bi jàngale na ko ci wàllu laylatul qadri looloo tax yonent bi daana ñaax njabootam ci fukki fan yu mujj yi ndax daana def euh, am na xadis boo xam ne Aïchata moo ko li moo wax ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daqala al ashru shadda midarahu wa ahya laylahu wa ayqada ahlahu nee na yonent bi sallallahu daana def bu fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ñëwee nee na da gis mu commencé di gën a góorlu ci jàmm yàlla ay yaani ijtahada fi l ibadati wa atazala nisaa dafay gën a góorgóorlu ci lépp lu mu doon jàmm daf koy gën a yokk waaye dafay beru jigéen ñi c'est-à-dire dootul nekk ak ay soxnaam mu ne bu ko defee nag wa ahya laylahu bi taati mu màggal guddi gi yépp mu dundal guddi gi yépp ci jàmm yàlla waaye wa ayqada ahlahu mu woo ay njabootam pour ñu mën a julli ci guddi gi lu tax mooy guddi googu lépp loo ci ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul la ko moo tax bokk na ci li yonent bi doon def ci fukki fan yu mujj yi mooy itikaaf te mooy mu dem ca jàkka ja nga xam ne fa lay féete ba ba nga xamee ne koor gi jeex na mu julli iid doog a dellu ca njabootam kon itikaaf ku ko mën ci fukki fan yu mujj yi nga def ko ci ci weeru koor bi moo xam nga dem sa ca jàkka ja lañ koy defee nag beneen bi nga xam ne itamit am na solo ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne dañuy làmbatu laylatul qadri fan la ci tombe te mooy qiyaamu layli imaanan wa ihtisaaban te mooy fexe ba guddi gi nga di to jóg di jaamu sa borom ci guddi gi di sàkku ci yàlla ay tiyaaba kon loolu yëpp ndax alquran yonent bi ma wax ne man qaama laylatal qadri imaanan wa ihtisaaban ughfira lahu ma taqaddama min zanbihi kon loolu li muy tekki mooy na nga fexe ba sonn ci imaanan ay tasdiqan bi waadillahi bi sawaabi alayhi wa saaban ay talaban lil ajri te mooy imaanan mooy nga dëggal ne yàlla mi nga xam ne moo la ne jaamul guddi gi dana la ci jox yool waaye nga boole ci nag ànd ak wut ci tiyaaba te mooy booy jaamu guddi gi da koy boole ak tiyaaba ñaan it lu am solo la ci guddi gi te mooy ngay julli ba defee ñaari ràkka toog ñaan loo xam loo ñaan yaa xam rawatina nag ci sujjóot bu mujj bi ndax aïchatu radiallahu anha dañ ko laaj ne yonent bi léegi bu ñu demee boo laylatul xadri bu ñëwee lan laa ci waaye jàng kon ñaan bi ku ko manit guddi laylatul xadri bi nga fexe di ko bëril même boo ko mokkalul bu ñu ko répété kenn ku nekk boo demee toog sa kër rek mën nga fexe nga mën ko mokkal bala ñuy dem ci guddi gi te moom yonent bi ñaan bi la Aïcha waxoon ne moom la yonent bi doon jàngale mooy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni te mooy yow sama borom yow yàlla day ku mën a jéggale nga waaye ku bëgg yi tamit kuy jéggalu la kon waaye yàlla yàlla ma jéggal kon lii dafay tekki ne ñaan boobu kenn ku nekk boo ko mënee nga di ko jàng ci guddi laylatul qadr sa kemtalaayu kattan di ko booleeg salaatu ala nabi di ko booleeg istixfaar di ko boole laa ilaha illallah di ko boole subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi aliyul azim lii yëpp ay xeetu ñaan la yoo xam ne kenn kenn ku ci nekk boo ci góorgóorloo ñaan ci yàlla mu mën la defal tawfiq mu yàlla mën la nangul lépp loo ci ñaan kon yàlla ñu ko yàlla defal bu ko defee ci kàddu yi daal ci la ñuy tëjee émission bi di ñaan nag ñi nga xam ne ñooy seetaan seen bi ñu ñaan yàlla na yàlla defal leen jàmm ñi nga xam ne ñoo koy seetaan ñu ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ñaan yàlla rek waxtaan bi yàlla yàlla fekk leen ngeen am jàmm waaye lépp loo xam ne moom lañ ci yéene te mooy nit ñi xam lan moo seen devoir ci weer wi ak lan mooy seen devoir ci guur euh, fukki fan yu mujj yi ak lan mooy seen devoir bu ñu demee bu ñu tey la laylatul qadri lépp lu ci nit mën a jàng moo xam alquran la moo xam salaatu ala nabi la istighfar laa ilaha illallah ak ñaar yooyu yépp kenn ku ci nekk loo ci mën a def rek nga profitoo ci ñaanal sa bopp jàmm ñaanal réew mi jàmm ñaanal li nga xam ne moom la ñu yàlla nattoo yàlla ñu ci yàlla musal kon mbokk yi lii daal moo doon seen émission tey bi yàlla ñu yàlla defal tawfiq yàlla ñu yàlla defal naja in uridu illa al islam ma stata'tu wa ma tawfiq illa billahi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi seen mbokk Ousmane Ndiaye moo nekkoon ci ci waxtaan bi seen mbokk Kéba Sané moo nekkoon ci caméra bi ànd ak Souleymane Ba